Yewi Askan gagné ville de Rufisque la gagné commune de Sangalkam la gagné commune de Sébikotane moo gagné conseil départemental li ñuy wax dañ koy gis ñu ñu leen ñu documents. Nous jox nañ 26 conseillers ndax ont gagné Rufisque Nord et gagné Est commune bi ci gëna a tuuti mooy Rufisque Ouest ñom ñu jox 10 dix conseillers Alioune Mar li ñu tax gagné ñetti commune yooyu ñi ñu voter foofu ñoo ñu voter voteelaat ci liste proportionnelle ville fu 44 conseil rek la ku nekk sa pourcentage ngay jël nga gagné nord gagné est gagné élection yi lu leer naññ la dañuy wax damay wax sama mak Alioune Mar ne ko mënoo gagné benn commune bi gëna a tuuti tuuti ci dëkk bi <laughs> nekk maire maire dëkk bi. loolu xel sax da ko mënul nangu. nag pour kaawu benn Bokk Yaakaar ñoom xaw gañe woo fen <laughs> yow gañe woo nord gañe woo est xanaa waroo am sañ-sañ xanaa kat kan mooy revendiquer ci ñoom ne ne ne maire la nag.